أسير مع الأبرار حين أسير وظن الهدان هناك أسير مسير مع الأخيار لله بالنبي ومعادي لخير الله أود مسير يسير بي الجزم الذي خانني إلى كريم عليهما أروم يسيرا سكوني بأخلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكور نصري وتائدي وهبزي لدى الهداء من الواشئ الوهاب asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit yi bokk taalib yi teelu alxadimiya TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen jaajëf lu baax baax di jiital ci ziyaar bi nag Cheikh Sidil Muxtaar ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér bokk yi yéen a ngi ànd ak ñun seen caravane 2015. caravane wàccaayu màggal Touba ngeen ànd ceeg euh, Alxadimiya TV fii ñu nekk nag mooy Tiib ginnaaw bu ñu jógee Daaru Wahab suñ deuxième étape fii ci Tiib nag euh, bokk yi euh, Tiib nag bokk ci pàkki Serigne Bassirou yi moom Cheikhul Khadim bi ñu ñëwee tamit fekk nañ fi bokki julli yi ak bokki taalibe yëpp kon bokk yéen a ngi ànd nañu seen deuxième étape caravane 2015 wàccaayu màggal di leen fàttali nag lépp loo xamante ni bàyyikoo na ci caravane bi Alxadimiya TV di leen ko indil ci anam yu gën a rafete kon bokk yi ñu ànd ak soxal nako dañ leen ko indil wasalaamualeykum. مسيري كوني أبده خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي خدم لي سوائده بكوني يا عبد الله وهو سهيرا ستوري في الدارين مدي محمدا بنزم ونسر وهو نعم ستورا بزوري كتاب الله وسنة التي noo ngi leen di nuyu ci lii leen tax a jóg di liggéeyal Serigne Touba nga xay ni yéen te ngeen mas ni nekk naka jëkk ba ba tey ngeen di ci nekk ba yàlla dogal ngeen dee ko def fii tey ah bi maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Mountakha mi nga xay nii moo fi nekk tey di jëwriñu Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké euh, mi sunu yaakaar tey ak ëllëg ah di leen nuyu itam ci turu doom jëm fi bàyyi ah muy Cheikh Mouhamadou Bassir mi ñu duppee maamam ju baax ja muy sëñ Bassirou te mu ne fi doon fi jëwriñe moom itam mu nekkal ko fi euh, ci jataay bi mel ni bii ah fii nag mooy dëkk bi nga xëy nii bokk na ci dëkk yi sëriñ Bassirou ginnaaw fu ñuy wax ah, euh, pakacaar ولا في سيرم بيصير تودي كو دارو سلام تسالوم موي دك مين خايني بام فو جيغي تكني شي دك بني واخ دارو سلام تي كايل دي اندك توبا كايل سي مودو دك توبا كايل مو دك دارو سلام بام تي جيغي لا دوغا نيو في نين نيو تاي دي دك بي دك بي نك موم لا شيخ محمد بشيرو كي ميم ياسو دك يي مالا باكاتيار ني نان كو دارو سلام اك دارو كايل دي اندك سي مودو مسوا جيغي في نيو تيب يديك واخ نفسي Serigne Bassirou nag mi ngi fi ñëw ci ndigal Serigne Touba ñëw gi it mi ngi fi ñëw ci at mu ñuy wax 1925 ah la fi ñëw mi ngi fi ñëw ci ndigal Serigne Touba bi mu fi ñëwee itam Serigne Touba moo ko moom la ko àndal moo ko wax la tax mu ñëw fi ba mu fi ñëwee itam ah, li garab liimaay gi nga xëy nii moom la Serigne Bassirou sañcee dëkk bi Serigne Touba moo ko jox. bi mu fi nekkee noonu ma leen ko waxee it bi nga xamee ni yàlla dogal na wër wër na ko du ko wër di ko wër ba yàlla jagale ko ko ni nga xëy nii. Eh, ni la ñuy jagalee nit ku baax ku bëgg lëf ah mu daal di fii nag def fi nag fas yéene fii nag daal di fii nekk liggéeyal fi sëñ Tuubaa liggéeyal ko sëñ Tuubaa it dafa daal di seet ñi nga xay ni booba ñoom la àndal ñëpp mu daal leen fii indi kenn ku ne mu féetale la ci barab féetale la ci barab ànd fee ak ñoom fu mu mën a jëm ci dund di fi nekk fii def ko def fii foo xam nii moom liggéeyal sëñ Tuubaa da ko fi taxoon a ñëw yor fi ay nit di leen fi tërbiya di leen jàngloo di leen liggéeyloo lépp lu jëm ci sëñ bi xanaa moom yitteem yitteem it booba mooy yitte sëñ bi rek ndax moom naka jekk ah, noonu ko Fallou si la waxee ci teew ak sëriñ bi itam yitteem mooy eh, gëstu sëñ bi ak eh, xam mbiram sëñ ba bari na loo na sax ci mag ñi wax nañ ne lu mu ci xeeti njàngam sëñ bee ko ko xamal boppam loo xëy na moom eh, wax nañ ma ci ay firnde ba bu tax na loolu nag bi mu xam ne sañ ci dëkk bi itam noonu la ko fi sañ ci jóge na fi nag dem feneen waaye fu mu mën a dem ci àdduna ak lu mu mën a dégg na ngeen xam ne tiib moom mooy baraba boppam bi mu fi jegee dem na Touba Mboul ñu ngi fi dem na fu ñuy wax Bil bi mu fi jógee 1948 dem na euh, Boulel ba mu jógee buleel am fa 48 ba 52 1953 euh, mu jógewaat Boulel ak mbooloo ma ña mu àndaloon ñëpp dil siwaat tiib bi mu dil siwaatee tiib nag 1953 nag booba la wax ne moom amatul fenn yitte furu fii li nga xam ne moom moom lay liggéeyal Sëñ Tuubaa moom des mën fi ne mm-hmm. am na wax mos nay waxtaan ak ku ñuy wax Moustapha Mbacké euh, sëriñ Abdou Assis moo ko jur sëñ Bassirou moo jur ndeyam di ko laaj mbiram baayam ak di ko laaj mbiram waxtaan moom mu ne ko mën a tiib fii ne doon na sama yitte joxee nii li ñu wax ak dex sax bu ma ko yàlla joxoon duutu ma ko gën a tiib euh, tiib rek euh, comme felaay ne kon nga xam ne sëñ bi tiib bokk na ci dëkk yi nga xëy nii yu ma gënoon fonk la nga xëy nii ñoo di ku mel ne Baye Ibra Babou ak euh, sëñ Ablaye Dieng sëñ Madické Dieng sëñ Mor Mbaye ji bi ma jur Baye Cheikh Dieng sëñ Mor Samba ñoom ñëpp mag ñi nga xam ne àndoon nañoo moom ci wet wetu Sëñ Tuubaa ñëpp leen daal di indi tiib kenn ku ne daal leen di jëlee Daaru Salaam daal leen fii dëkk fii xam ne moom fii moom mooy këram ba tax na fii moom mooy barabam boo xëy daal lépp loo xëy ni lu ëpp lu ci moom daal bi mu fi ñëwee itam sëñ ma ngay jama euh, bi muy nekk Daaru Salaam ngi nekk fu ñuy wax Daaru Gueye mu daal di ko fi indi fii 1928 moom 27 la ñëw fii 1928 mu daal di fi indi suñu magay jama lu ñuy wax wur koñ di wax kër sëñ kër sëñ Bassirou Gueye ñaan ko suñu magay jama mu daal di ko fi indi 1928 ñoom ñëpp na ku mu xam na daal war ngaa sës ci moom ci bokkatu mu daal fi indi ah, dëkk yi fi nekk yëpp itam mu daal di def ne fu ñuy wax Sam Ndiaye fii mu daal di fi indi sanc ko fi ba at yi nga xëy ni ba 1957 euh, la euh, la ko tubaab bi jox dëkk bu ñuy wax Nassour fii ci seen kanam mu gor ko sanc ko 57 euh, indi fa doom ju ñu wax sëñ Cheikh Astou Fall Mbacké mu nawet fa 57 58 nag ñun ñi xane ba ba booba ci daara ji nu waat ko mu ne fa nag ba nem ko sañcee ab dëkk ba fii ne doom ju ñu wax sëriñ Abdou Akim moo fa féete ne nekk Nasru mooy Nasru bu ngeen jógee fii da ngeen ko xam digg 5 km la digg ak fii moom it foofee mi ko lew lépp waaye booba it noonu ma lax rek la fay indi ba daal di seet ay talibi yi boppam yoo xam ne yu sës ci moom la mu dal leen di indi foofa dëkkal leen foofa ànd ak ñoom waaye yitteem yëpp ni ma leen ko waxee mooy yitte yi booba si mbirum señ bi waxtu bu ne rek moom ñu mu mën a àndal ak ñu mu waxtaanal itam ci eh, mbirum sëñ bi dañu daa waxtaan danaa def bu ma saa nekk ci daara ji eh, dañu daa boole ak mag ñi nga xëy nii dañoo jaaroon ci kër sëñ Touba am na ko ñu wax sëñ Mahmadan Touré eh, bokk na ci mag ñi àndoon sëñ bi da ko daa boole noonu da daan dañ daa def bu ñu ma saa reer ba pare mu dajale ñu nii ngeen dajalee dinu wax mbiram tërbiya nan la ko nit mën a defee ak di wax mbiram nan la ko mën defee man mii di wax a yéen rek fii ngeen toog euh, kere ba nga xamee nii maa ngi dem ci daara ji joxante na fekk man ñetti baat yoo xamee nii mm, baat yooyee daanaka ci lay sukkandiku ci sama mbiram bopp ndax lan ma njëkk wax mooy xam nga nu ñu nekk ci daara man a ceel ba mu ñetti yoon munoo boo demee bul seet kala gën nga rek seetal kañ ne moo gën ci téeméer góor yi fa nekk di déggal yàlla nga rocc moom boo ko mel ne moom gën ci téeméer góor yi loolu kere wax na ma ko dellu waxaat it ne euh, xam nga baax ni muy demee ñu ne Thiel mu daal di wax ne dafa am euh, koo xam ne dafa ñëwoon cib dëkk mm, di fa sàmmaan waaye fekk waa dëkk ba di ñu ñu umpale seen diine ba ñu umpale seen diine mu ne fa di leen sàmmaan ak di leen yeeg seen diine ba yàgg borom dëkk ba xëy may ko doomam ba yàlla dogalee borom dëkk ba far xëy euh, faatu waa dëkk ba xëy daje na ko ñu ko yaanu doy ndax yaa doyoon borom dëkk bi ca daal wax ne sàmmaan moo ko indi woon ci dëkk ba Euh, loolu keroog bis ba may dem ci rajo ji wax loolu wax wax loolu bokk na ci euh, nee na ma Sambane moo ko andi woon ca dëkk ba kenn nee na di wax noonu keroog bokk na ci baat yi nga xëy nii jokkalante na ko ak man ba ma keroog ba may yóbbu ci daara ji lu nga xam moom loolu daal li wax daal moom loolu moom ci li nga xëy ni xam naa ko ci ay bari na waaye lu ngeen ma ci xam naa daal moom nit jëmm la woon yoo xam ne daal yitteem yëpp moo yittee sëñ bi ku mu ma sa waxtaan yow it ci mbirum sëñ bi lay waxtaanee yow comme monsieur wax it ci mbiram sëñ bi lay waxtaanee yow ci mbiram sëñ Tuubaa ak doxalinam ak jëfinam ak yëppam noonu ñëpp loolu lañu daa dajale di ci waxtaanee noonu dinu wax eh, ak nit ko aw nit ku war a jëm fi barab na muy def ak ku bëgg a jëm fi barab na muy def ba yegg fi barab ak la la xam ne moo koy may la tax mu di ko def loolu lépp daal bokk na ci ay kii maanaam fii nag moom mooy fii tam fi la bàyyi ko itam màggali Tuubaa waaw bi nga xamee ne mi ngi dem Touba bi mu bàyyi ko fii màggali Touba génnaatu waaw bay judde bay seen donte ji may waxtaan ak yéen. baarakallah jërëjëf. rahmaani rahiim. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne mooy suñu jëwriñ di suñu kilifa di leen dalal jàmm ci ñëw gii ngeen ñëw fii ci dëkk bi. di leen teeru di ànd ak yéen itam ci ndigal li ngeen am di ci soññ suñu bopp itam di leen ci di leen ñaanal itam yàlla ni ngeen ko tàmbalee tey yàlla ko te may leen borom mi ngeen di liggéey eh, di sant yàlla bu baax ci jotaay bii ne xam ne dara waralu ko lu dut xeñtu mbirum sëriñ bi ak leeral ko yëkkati ko ngir ne moom léppam jóg na ba noppi waaye nga wane ko ba ñi ko xamutoon xam ko ñi ko ñi ko ñi koy dund itam te xëy na lañ ca xam bariwul ñu gën koo xam loolu nag doon liggéey boo xam ne képp bokk ci sëñ bi liggéey lu la war la ndax mbir moom balang ko mana top a ko da nga koo xam mooy boo koy jariñoo nga xam la ca borom dajoon dana tax na nga koy téyee nga xam ko ginnaaw ñun nag njariñ rek lañ dajal fekkewuñ bañ ko borom di sàkku lam ci dajoon lu ci bari ci jamono ji li waral muy muy muy muy muy jàddle rek loolu lay doon ndax mbir moom boo ko boo bu jékki-jékki dugg say loxo te xamoo lu ko indi hmm. mën nga ko sàggane waaye nag lii dina ci baax ñu xam boroom lim dajoon ba tax ba am lii mu am bu ko defee ñun buñ dee gor buñ mënta def ne moom it ñu jaar ci yoon woom jaaroon kon loolu lii day day day baax lool ci yoon wi baax lool ci njaboot gi baax ci taalibe yi hmm. kon ñu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm fii ngeen ñëw nag ni ngeen ko waxee eh, yaakaar naa Cheikh Mal Bachir eh, wax ko ci mbirum sëñ Touba yomb na ndax ku wax ci sëñ bi rek daanaka wax nga ci moom ndax moom daraam daa génn sëñ bi mm-hmm, mm-hmm. am génn sëñ bi ndax nekk ci nekkuk sëñ bi eh, amul amul dara mm-hmm. daanaka bu at yooyu at yu mujj yi ci ñaari at wala ñetti at yu mujj yi daanaka la tàmbali sañ sañcum dëkk te sañc dëkk bi sax ay dongay boppam sax dañoo nekkoon ci biir njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha kon moom am jéemul jéemul woon a wut dara jéemul woon a am dara kon ku wax sëñ bi rek da mel ne moom ma ngi ci biir ca loolu fii itam noonu ko Baye Cheikh ja waxee léegi rek ci ndigalu sëñ bi ci ñaanu sëñ bi law sañce ñoom nag ba ñuy sañ dëkk yi moom sax ak ak ak ñeneen ñi mel ni moom weesuwuñu woon sañ dëkk bi ngir ëmb li li muy suuf suuba di liggéey di yóbbu sëñ bi suuba loolu dong leen boole woon dëkk yi waaw njaboot gi di liggéey di yët sëñ bi loolu dong ci jublu ba yàlla dimbali leen ci nag taxawaay bu bi ñu ci am ñu am ko ci dëkk yi dem ba toll fii fes lañ ci doon wut lépp itam ñu am ko ci muy Euh, liggéeyal liggéeyal sëñ bi ñoom ba su ba suñu borom jëlee leen fii njaboot gi ñu fi bàyyi itam wéy di ci liggéeyal sëñ bi. Hmm. di fi tarbiyee seen dong ndax fii ci suuf si ba léegi ku fi nekkal sëñ ci dëkk bi yaa suuf si suuf si fi nekk yaa koy féetewoo say daara ñoo fi nekk ngir tarbiye wu tarbiye tarbiye njabootu sëñ bi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooy xeeñ ba léegi euh, yoon nga xam ne moom la mag ñi daan jaar ci sëñ bi. nga xam ne ba léegi dañ fiy wéy di fi yar njabootu sëñ bi muy taalibe yi di fi liggéey biir sëñ bi àllarba yi ak tool yëpp dara loo xam ne bala balañ ci balañ cee def dara lu we balañ cee def dara lañ ciy def du weesu dund ba cee def dara it dañ ci dañ cee dañoo sëñ bi daa jël la muy yóbbul sëñ Tuubaa ba noppi kon la la ko sampoon ba léegi ci lañ nekk muy liggéey yët sëñ bi lu ci des bu bu amee lu des nga doog ko nga doog koo jariñoo ci ci ci njaboot bi loolu doo weesuwut loolu kon kon nag euh, bu ngeen ñëwee fii ngir fësal loolu dañ leen ciy sant waaye ñu xam ne it nag lu mel nii bu ngeen koy def du caagi ne topp yoon yi di dox topp dëkk yi di dem waaye lañ ca war a jàngate moo am njëriñ mm-hmm. lañ ca war a jàngate nag moom la nit ñi war a dégg buñ dee gis image yi wala ñuy dégg wax yi ñu xam lañ ca war a jàngate lañ ca war a jàngate li jiitu mooy xam la sëñ bi dajoon ba mu samp yoon xam la njabootam gi dajoon ba ñuy sam ba ñuy sanc seen dëkk yi te ñoom booba wut alal taxutoon dara taxutoon lu am fuñ laxatu yar fa seenu njaboot man faa liggéeyal yàlla liggéeyal fa sëñ bi ba ba ba ba ba ba ba ba la leen fay fekk fekk leen kon wutu wutuñu woon lenn loolu nag day baax ñun ñii nga xam ne yàlla dogal na ñuy deretu sëñ bi tolloog jamono jamono ji soppiku lool lu mel nii man ñoo man ñoo ñoo jàngal man ñoo yar ba ñu dellu ca la nga xam ne ca la suñ maami suñ suñ suñ waajur nekkoon suñ maam yi nekkoon ca mu mu doonoon lu am njëriñ bu ñu ca ginnaaw sëñ bi di joxe ndigal nag gone yi mbaaxi mbaaxi yi dellu ci àll bi te si lu mel nii mooy mooy mooy mooy wane loolu ndax dellu ci àll bi du dara lu weesu dem ca liggéeyu sëñ bi mm-hmm. ndax boo nekkee ci àll bi ca lañ lay mën a joxe gone ca ngay mën a yare gone ca nga koy mën a jàngale boo nekkee ci feneen nag yaakaar naa loolu lépp doo ko mën te ñun loolu mooy suñu cër kon lii li muy jàngale rek mooy surtout ñun ñi nga xam ne ñoo ci bokk dëgg mooy ñu jàngat ci la nga xam ne yoon wa yoon wa yoon suñuy suñu maam jaaroon suñu suñuy suñuy maam jaar suñuy bàyyi jaar fa ñu jéem faa jaar hmm. ndax xam na it nag ñàkkul njëriñ ndax bu ñàkkoon njëriñ kon duñ toog ba tey jii ñu ngi wëlbatiku di ko xeeñtuwaat kon kon kon yaakaar naa ne am na njëriñ mel ne ne euh, riche na kon kon nag yaakaar naa ne buñ buñ ci toppee it loolu danañu amal njëriñ kon nañ ci góor góorlu so kon nag ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci soññ itam nag euh, lu métti métti itam ngeen xool ca fa fa fa def fa mu jaaroon nga xam ne booba oto yi ngeen di war ak ak ak jëfandikukaay yëpp dara amu ci te teewul mu faraan mu jaaroon fa ah ba tey lii fekk ñu fi kon yéen tamit lu métti métti fu ngeen ci mën a dem ak coono yu ngeen ci mën a ngeen sof ko ci loolee rek yàlla suñu borom may leen may leen ci ngërëmam te eh, kenn ku ci ne loo ciy sàkku rek suñ borom fekk la ci loolu comme gën ci yow jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah asiru maal abraari hiina asiru wa zanna lidaani hunaka asiru مسير مع الأخيار لله بالنبي ومع لي لخير الله أود مسير يسير بي الجذب الذي خادني إلى كريم عليهما سكوني بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكور نصري وتائدي وحفظي لدى الهداية